commerçant yi nekk fii ci Touba amaloon nañ ab ziar àllarba ji juróom-ñaari fan ci weer novembre ci xalif général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu jëmoon nag ngir sàkku ndigal ci sëriñ bi indi seen wàll ci liggéeyu université Cheikh Ahmadul Khadim muy liggéey bu mag bi nga xam ne sëriñ bi sumb na ko. li taxoon mbooloo mi ñëw fii itam mooy commerçant yi ak liggéeykat dëkk bi yëpp ndax ay ministres ngi ak yeneen ak yeneen ñu ñëw ne nañ la ziara si bëggoon koonu man di booleel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 ginnaaw kàddu yi nga xam ne Serigne Moustapha Gadiaga wax na ko ci turu mboolem mbokki commerçant ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci kuréel bii xalif général des mourides sant na lool ci yéene ji nga xam ne am nañu ko ak pas-pas bi waaye nag daal di leen soññ bu baax a baax ci ak njub waaye tamit defar suñuy jëmm. bu nu góorgóorloo ci sunu bopp. leneen lu nu góorgóorlu. day gën a yomb rek. day gën a yomb rek. di gën baax. di gën a sell.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 ci ay kàddoom itam dellusiwaat na ñaax bu baax a baax taalibe yi nga xam ne dañoo dëkkee fii ci Touba taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a am ngir doon ñoo xam ne fu ñu toll ay reyukaay la ñu war a doon. waaye dëkk bi nag. dafa mel ne kon. dafa mel ne kon. nee na kon dëkk bi li ñuy wax irshad ñoo ko amee ñooy pilote bi. ci liggéeyin yu ci biir ak ci biti. mboolem mm-hmm. ko bokk te waa gën a bari. fu ne fa. nee na da leen di jàngal ne. liggéey bi dañ koy tàmbalee ci dëkk bi ak ci réew mi ak ci àdduna si sépp fépp foo xam ne ay taalibe Serigne Touba nga fa dafa mel ne kon nañuy doxee dañ ko war a jàngee ci dëkk bi. liggéeyu université bu tuubaa nga xam ne ñu ngi ko door juróom-ñaari fan ci weeru février 2018 doon na loo xam ne taalibe yépp def nañ ko seen yitte ngir ànd kook sëriñ bi liggéey bi nag ma ngay dox ci anam yoo xam ne ku fa dem gis ne sedd na xol.